Info 7 avance. Info 7 TV ñu nuyuwaat leen jiyaar leen jaajëfal leen ci ànd bi ak ñun ñu ñëwaat rek wax ci parrainage xam ngeen ni PDS ak wàllu Sénégal ñoom nag xam ngeen ni barki démb ñu ngi leen ko doon wax ni leen kat ñoom mayaat nañ leen quarante huit heures ngir ñu mottaliwaat li nga xam ne mooy ay parrainage waaye nag xibaar bi nga xam ne war nañu jot ko léegi mooy parrainage yooyu li nga xam ne PDS déposé woon nañ ko ak coalition wallu Sénégal validé nañ ko kon daal finalement validé nañ li nga xam ne mooy parrainage bu PDS kon PDS foofu la ca Ndakaaru Njaay ci li nga xam ni mooy élection yi ak seen coalition bu mag boobu la nga xam ni mooy coalition wàllu Sénégal ñu seetlu nag PDS googu la parti bu mag a mag la ndaxte kat moom moo wàcc waa APR yeeg maanaam PDS moo daanu APR yeeg atum 2000 ba 2012 ñoom ñoo jiite woon réew mi maître Abdoulaye Wade suñu maam jooju ñuy ñaanaat rek mu yàgg fi lool te ànd ak wér kon mi ngi noonu PDS dina bokk ci élection yi li nga xam ni mooy la ñuy waajal le 31 juillet élection législative dinañ ci ñëwaat wii leen di ànd ak ñun ci Info 7 TV abonné tey bés